أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi jàng tey xadis baaqa min rawdi rasul tey ñoo ngi jël benn ci njàngalinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci aadaab qadaa aadaab qadaa'ul xaaja tegginu faj aajo tegginu faj aajo kan moomay liiral xadis bi bismillah رواه دخول الخلاء عن عن عبد العزيز بن سعيد
an عن عبد العزيز بن سعيد قال سمعت أن- انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال
mhm الحمد اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث kon رواه البخاري.
tey ñoo ngi jël aadaab duxulul xala an abdil aziz ibnu suhayb قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث rawahu albuxaariyu mbokk yi dafa am kenn ci sahaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tudd Abdul Aziz moom Abdul Aziz mu ne dégg naa kenn ci sahaaba yu mag yi ku tudd Anas Abdul Aziz ne dégg naa Anas ne yonent bi nee na yonent bi nekkoon na suy dugg toilette day jiital tànku càmmoñam ne allahumma inni audu bika min alxubusi walxabaa'is allahumma inni audu bika min alxubusi walxabaa'is kan moo nettali hadis bi Anas Anas nee na yonent bi loolu la daan def buy dugg ci toilette bu daan faj aajoom day wax allahumma inni audu bika min alxubusi wal xabaa'is mbokk yi hadis bi dafa ëmb ay teggin xam ngeen diina ji di lislaam diinun kaamil diina ju mat sëkk la bàyyiwul dara diina ji dafa mat bàyyiwul dara ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه amul lenn loo xam ne ci sunu diine diine ji dina ko soxla ci sunu wàllu adduna ak sunu wàllu diine lu dul diine ji leeralal nañu ko mbokk yi diine jii di lislaam diine la joo xam ne bàyyiwul dara ci wàllu àdduna bàyyiwul dara ak ci wàllu diine lépp lu nu soxla mu leeralal nañu ko ci sàllu sunu wàllu àdduna diine ji leeral na ko lépp lu nu soxla mu leeral nañu ko ci sàllu sunu wàllu àdduna leeral na ko wa min zalika bokk na ci loolu mu xam ne leeral na ko mooy aadaab qadaa'ul haaja tegginu faj aajo tegginu dugg toilette lu tax lu tax islaam leeral loolu li yatamayaz al insaan allazi karramahu llah an il xayawaan mimma karramahu llahu bihi pour ñu mën a ràññee pour ñu mën a xàmmee doomu aadama boobu nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala da koo bind teral ko wuutale ko rabu àll ndax nit ak rabu àll du ñu benn xar buy nefere nu ko neex la koy defee béy fas mbaam fu ko neex la koy defee fu mu ko fekk rek moo xam fi muy fanaan la moo xam fi muy yendu la moo xam mbedd mi la moo xam fi ñu ko yeew la ak yeneen rabu àll yi lu mu mën a doon lu nekk rek fi mu ko fekk foofu la koy def amma doomu aadama nag dafa am ay place yuñ ko defaral pour muy faj aajoom foofu moo tax yàlla dafa ràññale diggante doomu aadama ak rab ndax doomu aadama yàllaa ko teral fa bayyana diinuna diinun nazif mu ne mu leeral ne sunu diine ji diine ju set la wa diinu tuhuri diine laab la da ngay laab set fa hunaka aadabu sharciya tufaalu inda duxuli lxala wa xaalat qadaa il haaja am na fi ay mbir yoo xam ne charia daf koo leeral ne moom la ñuy def bu ñuy dugg ci duus wala ñuy faj sunu aajo moo xam dañuy tuur ndox loolu ñuy tuddee saw moo xam dañuy tuur dugub loolu ñu daan dem àll ba fa ida araada al muslim duxulu lxala wa huwa mahal al muidda li qadaa il haaja fa innahu yustahabu lahu an yaqul mu ne doomu aadama rawatina ab jullit saa yu jugatii bëgg a faj aajoom te mooy bëgg a dugg ci place yooyu nga xam ne moom la ñu préparé pour tuur ndox wala dem àll ba wala faj aajo bëgg nañ ci jullit boobu mu xam ne mbir yii daf ko war a def bi ci njëkk mooy an yaquula mu wax bismillah allahuma inni audu bika min alxubuse wal xa wal xabaa'is allahuma inni audu bika min alxubuse loolu lu muy tekki mbokk yi mooy yàlla maa ngi muslu ci yow maa ngi làqatu ci yow ci jinne yu góor yu jigéen ñi nga musal ma ci ñoom parce que kat toilette place u dëkkuwaayu jinne yi la dëkkuwaayu seytaane yi la kon ngay muslu ci yàlla mu musal la ci seytaane yu góor yi yu jigéen yi lii ñaan bi fan lañ ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li subuti zalika fi sunna ndax kat dafa sax ci sunna ne yonent bi nee na kuy dugg ci toilette yonent bi nee na kuy dugg ci toilette na wax ñaan bi loolooy benn ñaareel an yuqaddima rijlahu l yusra xaala duxuuli sooy dugg lan lañ ban tànk lañ wax nga jiital tànku càmmoñ jamono ji ngay dugg jamono ji ngay dugg lan lañ waxoon na nga wax ñaan bi ba waxee ñaan bi ba pare nga jiital sa tànk càmmoñ ñetteel inda xuruj yuqaddimu rijlahul yumna saa yooy génn nag tànk ndeyjoor ngay jiital wa yaquulu nga daal di wax wa yaquulu mu daal di wax moom waajooju duggoon gufraanaka gufraanaka balaa ngay dugg am na loo war a wax mooy bismillah allahumma inni a'udhu bika min alxubusi sooy dugg ban tànk ngay jiital tànk càmmoñ booy génn tànk ndeyjoor looy wax gufraanaka wa zalika li anna al yumna tustamal fi ma min sha'nihi takrim wal yusra tustamal fi ma min sha'nihi izalatu al aza wa nahwihi lan moo tax ñu utiliser tànk ndeyjoor bu ñuy génn tànk càmmoñ bu ñuy dugg lu tax ndax ndeyjoor pour teralaate la nga booy nuyoo ñu ne joxeel ndeyjoor booy joxe ñu ne joxeel ndeyjoor looy def ñu ne defee ko ndeyjoor ba mu des ba mu des ñaari mbir kenn du ko defee ndeyjoor benn bi mooy sooy loolu ñu naan laabu ngay defaru dem nga àll ba pare yaa ngi laabu ban loxo la càmmoñ ak lan ak ñendu ñu ne la loxo càmmoñ la ñuy ñendoo gis nga kon ndeyjoor pour teralaate la càmmoñ pour dindi sobe la pour dindi sobe la waaye xam ngeen ne cosaan mooy wal aslu istimaalu yadul yumna li doon cosaan mooy ñuy jëfandikoo ndeyjoor loxo ndeyjoor tànk ndeyjoor waaye illa ma yataallaqu bi izalati al azawana lu dul nag ca barab yu ñuy dindee sobe foofu kenn dootu fa utiliser tànk ndeyjoor kenn dootu fa utiliser loxo ndeyjoor lu ñu koy utiliser càmmoñ tànk càmmoñ loxo càmmoñ ñaata lañ waxagum ci yu ñu bëgg nit buy dugg ci toilette di ko def ñett su ma paree dina kenn ku nekk ci yéen dina ma limal ñeent ñeenteel bi mooy izala wa iza arada an yaqdi haajatahu fi lfada fi gayri mahallin muadda li qadaai lhaaja fa innahu yustahabu lahu an yabuda an innas bihaysu yakunu fi makanin xaalin wa yastatiru an il anzar bi haitin aw shajar aw gayru zalik mbokk yi bëgg nañ bu fekkee yow da ngay faj sa aajo da ngay dem àll ba fekk nekkoo ci kër nekkoo ci barab yi nga xam ne moom la ñu préparé pour nit demee fa toilette ci àll nga nekk ndànd foy-foy demal ba sori nit ñi ñaaw na ruslu na nga ànd ak nit ñi ci àll bi jekki-jekki rek taxaw leen ñu taxaw nga simi sa tubéy toog wala nga tekki sa sër toog loolu ab jullit du ko def da ngay dem ba sori nit ñi nga nekk ci place bu wéet yow kese léeg-léeg nga gis kuy dem àll ba nekk dëkk ca kaw nga dem àll ba ne gunge ma nga dem simmeeku jonkoon moom mu taxaw ngeen di wax yéen ñaar ngeen di waxtaan yow nga jonkoon di potututi loolu moom jaaduwul rafetu yow kay bu ne waaj boo ne waaji gunge ma wala nga ni sa mbokk mi gunge ma soo demee ba xaw a kii ne ko taxawal fii mu taxaw nga dem ba sori waaye gunge ma mu gunge la nga jonkoon mu taxaw ngeen di wax nit day am kersa nit day rus waaw nit day am lu mu bañ ak lu mu jomb mbokk yi yustahabu sopp nañ lahu ci mbokk moomu an yabuda ani naas mu sori nit ñi bi hay su yakunu fi makaanin xaalin mu dem ba nekk ci place bu wéet moom kese wa yastatira anil anzar ba nga xam ne ku xool dootu ko gisati wala mu ngi xool sax waaye léeg-léeg di nit la waaye xaw ma kan la fexeel ba nga sori nit ñi bu kenn xam yaa nekk fa la jonkon waaw wala bu ñu xamee ne yaa jonkon sax bu ñu xam looy def ndax gis ngeen yenn saa yi lu gën a garaaw mooy am na ci ay ay appareil photo yoo xam ne wala ay portable yoo xam ne mën na laa jël un kilomètre mën na laa jël un kilomètre lu mel noonu tey bu la ko benn waay defee bàyyi la ba nga jonkoon mu filmer la dóor la zoom bi filmer la caméra daal lay dugal ci facebook bi wala mu dugal la ci internet bi musiba dal la léeg-léeg day am kon looloo tax gis nga ngeen war a moytandiku loolu moo tax chaque jour ma leen di tare ngeen def yaramu neen ci balcon bi waaye du ngeen xam lan moo tax man may wax da ngeen jàpp ne damaa bëri wax kenn mun na nekk distance daal lay dóor portable am wala mu dóor la benn zoom photo appareil xëcc la ba nga jege si nga def yaramu neen mu daal lay dóor ci facebook bi ne la xool leen ibaadu bi xool leen diw mii da ngeen bàyyi xel seen bopp su ngeen xamul aussi buñ leen di wax ngeen nangoo dégg ngeen xam li tax ñu leen di wax lii lu mu mbokk yi ab jullit buy faj aajoom day sori nit ñi day nëbbatu day fexe ba kenn du ko gis bi xaa it moo xam ci tabax la wala ci dara la loo xam ne mooy tax kenn du ko gis wa xayru zalik ak leneen juróom yuxramu dina araam an yastaqbil al qibla kuy faj aajo du jublu penku kenn du faj aajo du jublu penku fi ngay julli nii sa penku bi pakaaba gi ngay faj aajo di ko jublu kenn du ko def aw yastadbiraha wala nga koy won ginnaaw kenn du ko def xaala qada il haaji jamono faj aajo doo won kaaba gi sa kanam doo won kaaba gi sa ginnaaw fi qada il haaja wa fil binyaan بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاج doo ko won nde doo ko won kanam doo ko won ginnaaw bal da ngay jublu ci yeneen wàll yi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere nit di faj aajo di jublu kaaba wala nga koy won ginnaaw hadis bi nee na li anna nabi naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha tere na an istiqbalil qibla ci jublu qibla wastidbaariha ak won ko ginnaaw xaala qadaayil haaji jamono ji ngay faj aajo lii yonent bee ko tere juróom benneel wa alayhi an yataharraza min rasasil bawli an yusiba badanahu aw sawbahu mu ne booy faj aajo mooy te ndikul saw yi tis sa kaw léeg-léeg nga dugg ci toilette karo la wala tabax la wala nangam wala suuf la ngay saw saw yi daal di génn fort daal di tis dal sa kaw yow ne xamoo ci dara dal na ci sa yére nga dem jàpp julli nga defe ne xam nga julli fekk amoo dara jullee nga sobe te ku jullee sobe amul julli te xamoo ne saw yi dafa tis sa kaw kon da ngay def attention bu baax booy saw nga xool ni ngay sawee nga mooy tëndiku balaa saw yi di tis ci karo yi di dal ci sa kaw wala muy dal ci xeer yi di dal ci sa kaw wala muy dal ci suuf si dal bu bu dëgër daal di delluwaat ci sa kaw fexeel nga moytandiku tis tisi saw yi mu dal ci sa yaram wala mu dal ci sa yére nga salaat yére boobu saw yooyu dellu ci sa kaw nga daal dem julleeku te xam ngeen ne encore da nga moytandiku dugg ci toilette tuur ndox ba pare génn te wisu woo ndax loolu day waral mbugalu bàmmeel yonent bi saa salaam romb na ñaari bàmmeel mu dagg xobu garab teg ci mu ne ñaari bàmmeel yi yàllaa ngi leen di mbugal waaye dinañ leen bàyyi ba xob yi wow ñu ne ko kilum def mu ne daawul seerlu daawul wisu buy saw daawul yóbbaale ndox ñu ne ko keneen ki mu ne rambaaj la woon kon di dem ci duus bi te doo wisu musiba dina la dal kon loolu lu muy tekki mooy chaque jour ku dugg ci duus bi gis ndox mi wàññeeku na lu la war demal nga rootaat ko demal nga rootaat ko loolu bokk na ci xawaaninul bayti yi dinañ ko liir waaw incha allah bismillah juróom-ñaareel wala yamussu farjahu bi yaminihi sooy laabu wala ngay defaru sa loxo ndeyjoor bi bu ko def ci sa kanam kenn du jàppe awraam ak loxo ndeyjooram loxo càmmoñ rek li nahyihi an zalika ndax yonentu dafa tere loolu gis nga boo jàppoon ba pare sax sa loxo ndeyjoor bi nga laalaat ko ci sa kanam sa jàpp yàqu na sa awra maanaam lu xonk lii ci loxo ndeyjoor bi lii bu laalee sa awra rek sa loxo sa jàpp yàqu na kon na ngeen def attention kenn du dugg ci toilette di jël loxo ndeyjooram di ko laale kanamam rawatina boo jàppee ba pare yonent bi dafa tere lool sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetteel mu ne wa kazalika laa yajuuzu lahu an yaqdiya haajatahu fi fi tariq fi tariqi naas daganul ci yow nga war a dem àll ba nga ñëw ba ci yoon wu nit ñi jaar nga jonkon su nit ñi yeewoo auzu billahi min ashaitan rajim la hawla wala quwata illa bi moo lii lu mu moo kii yal na ko yàlla alak moo kii yal na ko yàlla rëbb moo kii mooy xaj mooy kii moo bon ñëpp di la muul loolu ab jullit du ko def kenn du dem àll ba ci yoonu nit ñi kooku mooy benn kenn du dem àll ba ci ker gu nit ñi toog garab gu féex bu tàngee ñëpp daw ku nekk lal sa basan yow nga jóge fële ñëw ba fekk bàyyi ba nit ñi dem nga daal di fay jàll li nga fay jàll loolu kenn du ko def loolu ab jullit du ko def aw mawaaridu mi yaayim wala nga ñëw ba ci buntu teen bi daal di fay jàll li nga fay jàll loolu ab jullit di ko def ñetti ñi yonent bi daf leen a rëbb ñetti nit yonent bi rëbb na leen yonent bi nee na yàlla na leen yàlla sori yéen ma de kan ki dem àll ba ci diggu yoon bi ki dem àll ba ci keppaaru garab gi ki dem àll ba ci pindu teen bi wala pindu dex bi fi nit ñi di rootee ndox mu ñuy naan nga ñëw ba foofu daal fay dem àll ba yonent bi nee na ñetti nit ñi yàlla rëbb na leen kon mbokk yi da ngeen def attention bu leen yaakaar ne dund gi dañuy dund nii rek ku nekk def lo neex déedéet ñun dafa am aw dundin wu ñuy dundee muy lislaam lislaam moonu ne neen dundee nii ku dundee noonu yàlla fay la ku bañ a dundee noonu nga am bàkkaar boo dee nga jëfandikook yàlla kon ñetti nit ñi yonent bi nee na yàlla rëbb na leen mooy ñan ki dem àll ba ci digg yoon bi ki dem àll ba ci keppaar gu nit ñi féexlu ki dem àll ba ci wetu ndox mu ñuy naanee wa nahwi zalika mimma yaxtaajuhu naas lil muruur est-ce que yii rek la am na yeneen yoo xam ne nit ñi soxla nañ ko nit ñi dañ fay romb ak yeneen yi fa nit ñi def nga ñëw yàq ko yenn saa yi nga gis ci école publique yi ay gars yoo xam dañuy bàyyi ba nit ñi wàcc ñu dugg dem àll ba pare jël dem àll ba yi daal di koy raatale ci tableau yi loolu ñaaw na école bi ñëpp ko moom jullit yee ko moom dañ fay jàng ah loolu baaxul yenn saa yi nga gis ku dem ku ku ku sàcc bu araam bu dugg ci jàkk dem ba fa ilimaan bi di di taxaw mu dem fa àll ba ci jàkk wala mu saw fa sàcc rajo yi ba pare nga dégg ñu ne sàcc bi moo bon dafa sàcc ba pare daa dem cabinet fi imaam bi toog yenn saa yi tamit nga gis ko ci école arabe yi xëy na dañu mere oustaz bi rek ñu bàyyi ba mu dem rek nga gis ku ñëw cabinet ci seize bu muy toog mbokk yi loolu baaxul loolu ñaaw na loolu araam na ab jullit du ko def ku def loolu yonent bi nee na yow yàlla rëbb na la te ku yàlla rëbb yàlla da lay sori li yërmande gis nga iblis bi ko yàlla rëbbee dafa yàqule mooy tandiku leen mu ne aw albaqaau fiihi aw bayna alqubuur almuslimin même ay bàmmeel ay bàmmeel nga gis ku ñëw ba ci bàmmeel daal fay dem àll ba bàmmeel yi ñu suul fa jullit yi yii yëpp ay mbir la yoo xam ne yonent bi daf ko tere lima fihi min al adrar bin nas wa uziyatihim ndax lii kat day lor nit ñi te lépp luy lor nit ñi lislaam dafa ne bu ko kenn def lépp luy lor nit ñi garage bu nit ñi di raxas seen oto place bu nit ñi toog fu nit ñi daje ndox mu nit ñi naan garab gu nit ñi féexlu yoon bu nit ñi jaar ah barab bu ñuy jàngee lii yëpp ab jullit war na faa moytandiku def lu ñaaw lu bon loo xamante ne bu ñu xëyee suba làmmiñ yëpp nekk ci sa kaw loolu ab jullit na ko moytandiku juróom-ñeenteel wala yadxulu mawdi mawdiul xalaa bi cheyin fihi alquran booy dem àll ba bul yor alquran sa loxo bul yor téere alquran bul yor kayit gu am quran bul yor sagar bu am alquran bul yor lenn loo xamante ne alquran daf cee nekk booy dugg toilette teg ko teg ko yonent bi yoroon na jaara bu ñu bind laa ilaha illa muhammad rasulullah bu daan dugg toilette da koy tekki ko lay tekki wala yadxulu bu mu dugg moom waa jooju mawdiul xalaa barabu duus bi bi cheyin fihi quran loo xam ne alquran a ngi ci bu mu ko def wa kazalika naka noonu bu dugg ci biir foofu nga yor loo xamante ne def tur yàlla moo ci nekk moo tax na ngeen def attention ci tiset yi ngeen di sol tiset boo xam dañ cee tudd turu yàlla dañ ci cee bind lu mel ne Allah ah lu mel ne lu yu demee noonu nga dugg ak moom toilette yëgal ne def nga musiba lépp loo xam ne alquran la wala dafa am turu yàlla wala turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam këyit la moo xam lu mu mën a doon kenn du dugg ci toilette di ko yore wala daf dañ ko cee bind turam doo ko dugg di ko yore fukkeel wala yatakallam haala qada il haaja boo nekkee ci duus bul wax léeg-léeg nga gis kuy sàng ñu ne nga ne ku nekk ci duus du wax wala yatakallamu doo wax haala qada il haaja jamono jooy faj aajo ndax hadis boobu ibnu omar moo ñu ko nettali nee na marra rajulun bin nabi fa sallama alayhi wa huwa yabuul fa lam yurad alayhi rawahu muslim benn waaye romb na yonente bi alai sallam yonente bi di tuur ndox jonkon di tuur ndox waa ji daal di nuyu yonent bi yonent bi fayu ko yonent bi pare faj aajoom sahaaba yi ne ko ah yonent sallallahu alayhi wa sallam yow de waa ji dalaa romb nuyu la tontu woo ko mu ne dama doon faj aajo kuy faj aajo kuy wax ak yow doo ko wuyu mbokk jullit yi fukkeel ak benn wala baasa bil kalaami xaalal wudu wal gusl booy sangu wala ngay jàpp suñ la waxee ak yow war ngaa mën a wuyu loolu dara nekku ci booy sangu wala ngay jàpp su nit waxee ak yow mën ngaa wuyu fa ida faraga min qadaa il haaja fa innahu yatanazaf al maxraj bil istinja bil maai aw il istijmaar boo paree faj aajo place boobu nga xam ne fa la faj aajo yi doon génnee da nga ko war a defar ba mu set ci ndox wala fomp soo amee ndox moo gën ak saabu nga raxasu ba set ak saabu ak ndox soo paree nga raxas sa loxo yi ba mu set boo amee eau de javel nga def ko ci sa loxo yi soo ko amul nga wut morso boo ko amul nga wut këyit boo ko amul nga wut ñetti xeer wala nga wut ay bant mooy tandikul nga fompoo loo xam ne dafa am xorma alxuraan da cee nekk këyit gum jund alxuraan wala téere alxuraan wala yére bu am alxuraan wala tur tur yàlla tabaraka wa taala mbokk yi loolu ñu naan laabu wala ñu ne fomp lu dagan la ci lislaam moom la ñuy wax al istijmar wal istinja al istinja mooy laabu al istijmar mooy fomp ci xeer wala bant am na ñett yoo xam ne dañoo tere ku ko fompoo yax nefere ak lu am xurma kayit gu am alxuraan wala sër wala yére bu am alxuraan ñett yi dañoo ko tere yonent bi nee na moytu leen fompoo yax ndax yax kat jinne ya koy dundee jinne yi bu ñu fekkee benn yax bu wow yax suñ ko jëlee bu ñu nee bismillah rek day am yàpp ba fees ñu lekk bu ñu fekkee nefere nefere mooy loolu nag di génne wala fas bu wowee su ko jinne yi jëlee daan ne bismillah rek day nekk mburu ñu daal di lekk yow nag boo ko fompee jinne yi bu ñu ñëwee dañ lay rëbb dañ naan kii yal na ko yàlla alak kon mooy tundiku leen loolu mbokk yi fukki mbir ak benn ngi ni yoo xam ne moom mooy tegginu faj aajo nañ ko jàng ñu mokkal ko ñu xam ko bu ñu mbir mi gaaree ñu bëgg a faj sunu aajo ñu jëf lii nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant ñu jëf ko ñu bàyyi lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant nañ ñu sori ko kon mu ne bu fekkente ne mbirum laabu la sopp nañ mu nekk ñett ñett sooy fomp nga fomp ñetti yoon kon ñetti kayit wala ñetti musuwaar bu dee ndox la moom ba mu set rek waaye bu dee fomp la moom foog mu nekk ñett ñaareel bu mu nekk yax bu mu nekk nefere bu génn ci rabu àll ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere lool ñetteel an laa yakuuna muxtaraman bu mu nekk lu am orma lu am orma mooy lu ñu bind alxuraan wala ñu bind ci turu yàlla wala mu nekk lu ñuy lekk xam nga dem àll ba pare jël mburu di ko fompo wala beñe wala pain au lait loolu araam na bu ko kenn def ah wala mu nekk nefere do rabu àll loolu bu ko kenn def wala téere yooyu bu ko kenn def kon lii mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci teggin boo xam ne moom mooy tegginu faj aajo kon incha allah dars baa ngi noonu yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.